damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama sëriñ ku la faj ku ne nga ne moo ma mën moo ma may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne moo ma xetti bi te nag bu ne sëñ Touba yàlla ak sëñ ñu ne danoo bokkaale bokkaaliwun sëñ Touba tawxiid la jëkk a def ci ñun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billaah loolu la jëkk a def ci ñun wëlbatiku ترقينو موي في ني الاسلام مو خام نامي جامو يالا موديل ديف الاحسان ناخ بو گيمي دي جامو يالا تي نجيستال فاخ اك بگال دينا يالا دوكو نانغو لون ديف يالا تاب كون نون اي مؤمنون مسلمون محسنون لانو دونو اي مشركون واي نك يالا ديو موم ميغي القران ناخ سونو بروم مو القران ني دون واخ لينو يالا ك يونن سي دي جوخ لين دولي yàlla ak yonent bi lim nu jox doy noonu kon day mel ne yàlla daa joxe yonent bi joxe fu nu teg sëñ Tuubaa yàllaa tax foofu weesu na